salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh وطاهوه ويرزق يا من كيلفته واسكنك عليك وسع عليكم شيخ عليهم تحتكم دينها كان عن الاسر وعيد ورحمن وكما تقرأت السماء والارض يحب يا مشرك يسكن اجيب محمد وتحلف على الله كما يسمحون رحمنا امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعر نيب والعبد الخديم والطبيب روحي خديمي وافيد الخديم المغني waaw kuy doon Akabou Salihine ñëpp ñu ngi di di siyaare di siyaare ci ci ci weer yu yàlla yu tëdd yi yàlla mu xam ne ko weer yu weer yu yokku ak sa weer mu ci ci noonu yi xam naa Moodu na ko laaj alxasul fikri yi lan la xam naa wala alxasul idéologie loolu loolu laa laaj lu yaatu bu yaatu xam naa waaw tënk rek ñu xam naa moom lu xasul fikri moom musiba jóg ci àdduna pharaon yi defoon nañ ko ba dominer àdduna bi ci yëpp yëpp yëpp dominer nag ni woon nañ àdduna bi nga xam ne man nga ne alxarnu saalis xablal milaad adduna bépp mi ngi ci domination pharaon yi pharaon yi pharaon nag ni ko Cheikh Abdou Diop waxee moom mooy buur fari waaw moom pharaon moom mooy buur fari bokkut ak noonu noonu noonu ci adabiyaat ci alan bi di tuddee nga xam ne jublu ci jabaar koy noot nit ñi déedéet mooy bu bu bu far yi. change mi naam ci ci ci troisième siècle ci juddu seetaan yi salaam alayhi salaam ci la imbrateur yeetu gën a taxaw ba ba alxarnu saamin daanu imbrateur yi mën a taxaw kon on domination culturelle kon moom. amoon na domination culturelle li koy maye mooy xasul fikri yi misaal tey murid gi bu ñu amoon conscience tigi danañ dominer danañ dominer adduna bi wala ñu dominer su su su suñ su raison bi ci jàllale ay xalaat yoo xam ne fañ koy jàllale ñooñu amuñu ko te ñooñu gis seen bopp lool xam ne am na lu njëriñ incha allah alxidma rek warees na ko mën a jàllale fépp xasuwu ko fépp waaw jàllale ko fépp foofu nag moom mooy ci mooy fu ci wàllu positif bi waaye bu dee négatif moom ñëwaguñ ci domination culturelle boo xamante ne dalay bëgg a dimbale mooy comme ni nga xam ne lislaam defoon na ko di conquête yu ñu doon def di dugg ci réew yi ba ba indi impérateur yi bu mag boobu nga xam ne Makka ak Madina ba ca ba ca Espagne lépp l'islam ba ca France bu waay ci xanaa di xare bu métti boobee bu waay ci ci France yooyu yëpp nga xamante ne booba booba xasu fikir yi la nga xamante ne ay xalaat yooyu xeex la ay xalaat xalaat am na benn français di tur ba 1902 da dafa waxoon ne imbratur yi kat ay kënu ay ay ngànnaay moo moo moo koy ma taxawal waaye bu bëggee mu sax domination culturelle moo moo koy maye xasu fikir yi ci ngay jaar ba ba ba mën a loolu sax misaal tey Sénégal Afrique sow jant ni ñu tubaab ni ñu gëmee tubaab xam ne dañuy gëmee tubaab for mooy lépp mooy cosaan lépp mooy mooy cosaan lépp da nga dégg sax gars yi naan di bind ci wolof sax di wax naan arafidate yi ñëpp ko moom maanaam tubaab moomu ko loolu moom ku fi iji iji ci xam-xam dara du ko wax moom ko kooku moom waaye xam nga domination totale bi am ci ci noonu nga xamante ne bu ñu xaar sax dootuñu xaarati ci suñu bopp waaye xa- dañuy xaarati ci beneen culture bu ñu xaarati arab bi bi sang bi gis nga ko buy xalaat di xalaate ci waaw man sama sol si musu àllaji si musu àllaji sax nga xam ne sax ci leen ci leen kon musu àllaji boo xam ne daanaka sol sol tubéy ju gàtt yoo xamante ne daanaka aw aw awram yaa ngi ci biti maanaam loolu aada ju bon a bon la ju bon a bon ak aada yi naar yi yoo xam ne xamuñu woon mbubb la waaw teew teew xa- xam nga mbubb kon bo kon copie collé boobu tax tax na kon dañuy copie lépp waaw bu mu gàtt nangam nangam andi la ay ay hadis yoo xam ne hadis yi buñ ko xoolee xam nañ ne hadis yi waxut la la hadis yi la pour pour que diwlee lay bañ booba naar yi ñàkk ku sol mbubb muy diriku ñu ne kii kii kat daa am waaw nga xam ne nga xam ne léegi sol na mbubb boobu ba ba ba su- ba mu ëppal ko fa wax nga mu mu mu diriku moom noonu xamuñu ko wala wala lamba yu diriku noonu xamuñu ko xasul fikir yi boobu nga xam ne nga nga xam ne nga dégg ku naa la ahlu sunnati wal- ci wal jamaa ci ci ci ci laa bokk te concept bi sax xamu ko ahlu sunnati wal jamaa jamaa ji moom loolu parti politique mu mu mu awee ba ñoo ko ko ñoo ñoo ko ko yettal na ma ahlu ahlu sunna ne ñoom ñoo ne ci dëgg ku ne ku néew ci ku néew ci ku ànd ak ñoom néew ci dëgg loolu dama la ahlu sunna di di di booba ci ci contexte politique bi yaa booba wal jamaa ji bi bi si dana xasan démissionné ci xëccoo nguur gi moo Muawiya ne ko léegi toogal yow Muawiya saa boo fi jógee nag waa bu dul suuraa bi ñu wax bu teg ke- bu fi wutal kenn bàyyi jullit ñi tànn ñu tuddee at moom amul jamaa nga xam ne at moo xam ne jullit ñëpp am nañ benn imaan ndax lu ko jiitoon imaan yi asan la am ak imaan Muawiya waa parti pouvoir bi am doole kan kàngam yu bari te di financé ñuy bindee ka nangam mën naa bëri ñoo ko yor ñoo yor jumaa yi ñoo yor nangam ñoo- ñooy wax daal ne ahlu sunna wal jamaa waaw ku ne xam ne ne loolu loolu moom leer nañ xasu fikir yi nga xam ne xasu fikir bi mooy tax ba ba waa ji di wax yow loolu te du ko xam maa ngi tudd ahlu sunna wal jamaa automatiquement yow iqsaana la yow bokkutoo yow yow moom lasta min ahli sunnati wal jamaa waaw buñ buñ la xasee wax lool loola la jeex na ku dul loola bi- bidaa yi la bi kul bidaa daal la kul daal fi naar waa di waa di gàtt bidaa mooy lan loolu usul yi ñu ne bidaa moom mooy loo xam ne da nga ko yokk yokkoon ci ak julli julli timis nga ji rek ko ci rek ko ci rakka mu ñeent wala julli suba nga yokk ci ñaar rakka waaye lo- loolu mooy bidaa waaye fanaan julli na naa fi la téeméer rakka bi yooyu ginnaaw suba tey kooku du bidaa mooy lu am solo mooy lu mooy mooy lu am solo nga xam ne ne tey tubaab bi fexe ba fexe tubaab bi tubaab bi tubaab bi tubaab bi tubaab bi fexe ba ba ba nga gëm ak tubaab ak tubaab bi nga xamante ne gëm nga ak tubaab bi nga xam ne danga danga jàpp ne aw dundin avancement du am fekk fekk fekk defoo ni tubaab bi loolu moom loolu moom xam naa Sénégal moom incha allah moom ci lañ jëm soo soobee yàlla ndax ndax service yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a kontar ko kontar wàgg boobu di ñëw dañoo amut dañoo amut dañoo xotul moo tax su su su wenge yi moom ñu ngi ci seen i kuréel ak yooyu ñu ñu ñu ñett a gën ñett a def ñoom ña nga ci oto yeeg màcce ko nga xam ne day mel ne ci kanam tuuti suñu réew mi moom dana doon tubaab pire moom tubaab boobaa avancement dana am nag kër yi boo demee saa si seen boulevard yu mag yi dana dana dana fi am soobee yàlla dana am sunu sunu sunu sunu ressource culturelle yëpp dana naaw waaw yi ñu yi yi yi yi ñu doon basé basé sunu sunu sunu sunu dund gi lépp waaw yaakaar naa jàggatul dara loolu am développement bi ci ci ci wàllu matière da- daal di kii ñu tabax ñu tabax boulevard yu rëy étage yu gudd to- to- toit bi da- domination boobu booba daal di gën a feeñ ci ne boobaa ay nit ñu ñuul la ñuy doon ñu sol ay ay pantalon ak costume yoo xam ne xol ba xol ba ba mbay tubaab la te bu te te te boobu boobaa danañ am question ci loolu dañ dañ mel ne li nga wax dëgg la ndax ndax bañ bañ duggagul ci tuuti ci tuuti ci tubaab bi amuñu woon loolu te te xamuñu ne demal Duufour ca ca France bi bi égyptiens yi di def ay terrasse ak étage booba bañ koy def ma nga Duufour de ma ko jàng fa maanaam boobu tubaab yi ni ko ni ko ni ko français ba samplion Pejag nga xam ne ne moo moo découvrir mbindum égyptien ba mën ko lire yoo xam ne ne booba maamam yi ñu ngay làmbooy dara di dë- dëkk ci ay konti lépp rek civilisation bi gis lépp lali bois yeeg lépp lépp maanaam expliqué daa ngi la ñuy wax siège turquie dafa am siège anglais ak siège turquie ñu koy waxee ci ci salle de bain yi siège turquie boobu du turquie de tubaab yi jàmbaar lañ maanaam léegi Égypte la jóge dugg ci islam islam booba turquie ca ato ottoman yi al matul osman yi fala xataa islam yi daal di fala kii fala fala fala taxaw booba tubaab yi buñ bëggee wax li islam ñu ngi turquie du du lislaam mag a jóge Égypte njëkk ji waaw lu am am solo yoo xamante ne tu- ne nga xam ne yow gëstu woon sa sa bopp sunu sunu bagage yi jigéen yëpp rek yëpp nga li li li ñuy téye kawar yaag li li ñuy defaree ay xeef ak lépp rek ab seet ak lépp bu ko égyp- égyp- égyptiens yi bañ koy am di sol robb robb yi nga xam ne su jigéen ñi ko sol koo laaj ñu yaakaar ne tubaab ko moom robb africain yi ñoo ñoo ko doon sol Égypte booba tubaab xamut boobu yow yow baree baree bare yow baree baree bare waaw maa ngi dégg benn Youssouf Sadiq tunisien boobu ndax naan quartier quartier quartier quartier murabban lay biri ma maanaa mi ngi jóge ci islam jur ñi booba ñoo ko am murabban bu nekk ñu dog ko mooy ab carré bu ñu dog ko ñu tudde foofu ab quartier ci la tubaab bi jël quartier xoolal magasin magasin la de ci la jógee demal ci médecine ba am na benn siif bu ñu ci def téere bu am solo yor naa ko bagage yi nga xam ne ci la ñu opéré ba ba léegi si ba léegi sax de bu dul yoo xam ne électronique la jur ñi ñoo ko ñu ko jëlee woon ca ca Espagne mu jógee Baxdaad xool Baxdaad jamono ju islam dëgg boobu amoon nañu hôtelu ak bu dal la dawkat yi nekk ci wet bi ñu tudd leen hôtel hôtel la hôtel demal ci hôpital hospital mustasfa booba jur ñi ñoo ko indi Espagne jël ko ay gason yi danga nga xam ne nit ki man man fay feexlu booba booba ci booba ci Espagne yi ngi fekk booba ak Italie booba ñoom xamuñu sax forom luy maladie wér di xamuñu ko yaakaar yaakaar ne ay rab la comme ça wér dañuy dugal ci pokos yi ci église ba ba pare pharmacie pharmacie boobu ma nga jógee Bagdad Irak la jógee boobu ñëw ci Espagne ñoo jàngal tubaab yi maanaam pharmacie pharmacie si tubaab xamu ko say dalier yu bare bari nga xamante ne ko boo xamul nag nag sa bopp yooyu yëpp nag boo ko xamul da ngay daal di réer réer te benn waay mi wax naa ma naa ma bambara amut seen làkku bambara Kayar na ba la la làkku bambara ñoom amul amul sàcc Mali Ma Mali amutoon sàcc Mali Mali ci émiratures yi ba amutoon sàcc booba axar noonu cent mille miyaat yi boobu wax sàcc amu fa gan bu ñëwee doxandeem garab gu mu fekk ñu am penc mën na faa teg baas bi bu demoon ba génn àdduna dañuy xool ki giir gu ko gën a jege ñu jox joxe balaasam mu daanu ko Mali ca la ca la kal gi ñu jógee kal demal ca Ibn Battuta kal nga nga bind sax kaa alif laam waaw kal kal nee na booba giir yi nga xam ne dañoo amatu mbokkoo deret ñu ñu ñu bëgg leen taqale salte ñu ne njaay jóg amuñu amuñu ku amuñu ku jaxasoo deret mbokkoo deret boobu amu amu ci ñu ne ñoom ay kal lañ koon léegi ak mbokkoo léegi dal di am yu am solo yu am solo yoo xam ne stabilité day tax mu am ci réew mi kal kal booy dox ci ci ab dëkk dafa doxandéem ba boo nuyoo sant Jóob daal di daal di di di nuyoo ne ne damay damay laaj ah bëggoon fu ma dal ñun sant bi nga ne Jóob wala daal ne ah jam ne yow de tey tey de xaw ma xaw ma sama añ sama añ ba tey tey moom du doy ah yow kon nag nga sant mu ne ah Njaay tàmbali kal daal di bisimilah nga dem këram muy lu am solo boo demee kër ga daal di mel ne fa nga dëkkoon. tubaab yi demal ci dama Europe dem naa Espagne Allemagne France Italie màggatum tubaab alku na alku na loo mën di yor jeexal na ay doom ba dañ ko apante nañ ko sànni nañ ko nga gis romb ak kër ay muus yu bari ne ci biir di ñu ñëwi nga gis nga dégg nga dégg ab tubaab màggatum tubaab ne ne fa di wax ñoom wala ay dawkat ndax amatut communication bi bëgg ak bitti bi mënu koo am ak moromu jëm mu ko def ak ak mala yi nga dégg sax boo demee ci ci seen sàdd jublu yi nga dana maa ngi taal yi sàdd naa ñëw nii ab yor yor fekk sama gars yi ma seet yi boobu xëy na ñu liggéey ma toog ci sàdd jublu bi di leen xaar am accident bu ndaw oto yu ñu laante rek tubaab maga tubaab yi ñu ngi yor seen visite yi sangara yi di wëreelu nga xam ne dañu ñëw di di di ñëw ku ne ñëw ñëw ñëw nañ ci man di di wax wax xanaa daal di ma expliqué ne ne ne la xew loolu nga xam ne dañ lay wétlikoo ku ne xam ne xay moomu xay mooy civilisation ci wolof xay moomu ku ne xam ne lu xayee di la waaw lu ñàkk a civilisé la kon yu bare bare nag gën gën naa xóot xóot xóot noonu boo demee Amérique tubaab bi benn si war nañu war nañu tubaab boo xam ne projet mooy dajale mbir mbir si tubaab yi projet bu amul tubaab gàttal am na fa américain boo xam ne ne ne li muy dajale mooy mooy waxtaane si si si si si blague yi bu yaakaar ne ay ay ay julli leen de déedéet ay orientaliste lañ ñoo xam ne dañoo dañoo bëgg a dominer adduna bi domination totale xoolal suñu xam-xam yi xam-xam yi maam yi séeréer yi bambara yi joolaa yi mandinke yi soose yi pël yi pulaar yi seen xam-xam wolof yi seen xam-xam yi maam yu mën a faj nangam ëf mu sedd fii nangam raay mu mu wér yooyu yëpp Souleymane Bachir Diouf rahimahullah ambassadeur la woon Égypte nee na ma américain yi jël nañ moccu dama dama jël nañ yow yónnee nañu fi ay xale yi théologie yoo xam ne ñu ñu jox leen ay ordinateur ñu dugg àll bi di jël xam-xam yi ana ñu noonu su ko jàng jàng tubaab boo xam ne wala jàng arab jàng arab na afa haram xamul dara di alxukumu ala shay fara fara fara woon ndi sa wuri bala ngaa dara dara def nga xam xamoo ko xamoo ko mas na waxtaan mooy mooy ca asixar boobe waxtaan bi mu mu mu mu ma dantigaat xaadimu njaay rachid di wax na na na am na ay ay ay jat yu bari yoo xam ne yoroon na ko mokkal na ko tax waaye waaw nga ne day fa nangam fa nangam daal ne yooyu yooyu dafa xaram waaw ndax nee na xamut lu lu lu firi mu ne ko awaay mu ne ko awaay ndaw atte loo xamut loolu loolu mu ti nekk di diggante atte dàq ak saxal am na ñu tuddee tuddee taxawlu taxawlu waaye yow loo xamut loo xamut yow yow yow loo xamut rek waaw aspirine bi li ko co- li ko composé ba mën a di di di wéru métti xamu ko kon léegi moom dafa xaram aw waayandaw waaw waaw waayandaw waaw xaxaari njaay si am njaayeen la moo tax ba koy kale moom ay xale waaw maanaam may kale Cheikh na Bakki Abdou Diop waaw waaw mu mu ngoog mu ngoog lu bare bari la kon xasu fikir yi bu ngoog gën a gën na gën na yaatu fa bi ñu ngi ci liggéey liggéey boo xam ne domination totale rek la ñu bëgg soxna